su ci tolluwaay bi jamono ji korona lu ko waaye wax tooñ ko ndax suñ boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu danoo sàkk sàkk ko mu wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante sikki sàkka lu jiitu weddi aku déng-déng nun doomu aadama nun ñëpp li ci ëpp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 أنه waruñoo am jenn xalaat wala jenn tiitaange wala ñu togg togg suñu bopp jenn fitna lu nu nu bu nu xëtteewoo dara lu nekk ci li ñu war a nekk mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci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 kon kay dara waruñu lul waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif Euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am na nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk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 ci seen borom day wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon loolu ko fi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rekk lañ war a def suñu borom mi nu boole sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp ñi balu xaq ñëpp di ñaan ñu balonte xaq ñëpp eh, loolu nga xam ne mooy suñu mooy suñu liggéey buñ ca nekkee eh, ak ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laabirante ak ku dimbilante loolu rek moo lañ moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh, sama bopp mooy moom laa sa jiital ñu ca samay bokk mbaa ma bokki taalibe sama bokki jullit loolu rek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 jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun ñu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu son sunu borom bi mu néexu sa jox jox ak xam bu ñu xamoon lenn loo ko xam ne dina ko jox ak xam ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko junj mooy julli ndax la jiitu ci nu war a jàmm war sax ci jaamu ga nu nu nu taawu mag ak suñu borom bi ci kaw te loolu ci lu rekk la ko mën a feeñale kon lépp loo xam ne moo ni dimbali ba soo jaamu ñu jiital ca euh, yëkkati màggu suñu borom gi eelaawu kalimatullahi loya moo ngi ñaan bu baax a baax boom gàddun nu euh, gàddun nu ba mën a gën a gën ko mën a jaamu gën a gën a mën a jaamu suñu borom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 suñu borom jaam moom yëkkati mag màggam gi rekk la te loolu mën nu koo def ba def ci ba jox ko àqam moo loolu mooy mooy junj junj boobu waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin mën na noo am xel soo xel mën na daal mën naa daal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi ah, sëriñ bi moom li may wax na rek dañ ko war a jéem ba xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu ñu ko gën a xam eh, di gën di jege lu ñu ko gën a dund di gën di mucc di gën di raw kon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 ganum njariñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk nu fi nun ñépp yal na mu teeweeti ñëwam bu rafet déwén te fekk nu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na nu fekk ak xol bu sedd ku yiw te fekk ay njariñ ak mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na mu fekk ak may gusu xali may te fekk nuy bari ganum njariñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk nu fi nun ñépp yal na nu teeweeti ñëwam bu rafet déwén te fekk nu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na nu fekk ak xol bu sedd ku yiw te fekk ay njariñ ak mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na nu fekk ak may gusu xali may te fekk nuy bari taw féex ak